a ref a ñigey Modou Lo a roy looy na xaray to a jofna a xayaji o a ref Fermada Maniga. Mira, eh, arroyo. bu baax a baax te ñii taw di xool muy ñu xam làmb yëpp xam nañ ñun du ñu xeeb bis bis bu ñëw dañ ci def fula fayda ak jom ba tax na lépp lu ñu war si suñu entraînement suñu préparation nekk nañ ci dañuy ñaan yàlla rek mu may ñu tal ak fekke ba la 24 lu ñu liggéey ñu won ko ko incha allah. ñu gis ñu gis ni combat bi moom nga gën a préparé sax moom nga gën a préparé que sa diggante ak Boy ak Ama Baldé ci lu ñu gis ci d'après. léegi euh, euh, rumeur yi nga xamante ni jot nañ ko ci réew mi lan moo a loolu Siteu da nga gis ni dafa tension wala Siteu wala fit ah, bi dafa ma euh, comme li gars yi ko bëtam may fitam du ko dem préparé wu carrément ci biir waaw ñun lamb bu mënti am parce que lamb la ñu def métier di ñu xeeb benn benn benn benn bis ba tax na bis bi ak bis yu ñu romb moom la yemale dañ ciy def suñu ngor ak suñu jom man li may wax chaque fois rek foo sax bëgguma ñàkk waxuma la nag lamb xare la ñëpp di xaar muy say soppee muy say bañ ba tax lépp lu war ci lamb ji def nañ ko def nañ lu ñu war a def suñu mbokk suñu staff di leen yàlla mañu ndam la bonkaat est-ce que Siteu bu xeex ak yow est-ce que bu xeex ak yow di nga fekk ci xeex bi wala bu xeex ak yow da nga koy bàyyi xeex bi ñàkk ko jël koo jàpp ñëw moom ci bëri xam nga ay mbokkam ay mbokkam xam naa duñ ko conseil bu xeex ak man parce que naar kenn du ko woo ci nguuxum soow waaw mais li ñu mujjee wax rek man moom loolu laa koy fàttali mu dëggal ko waaw lu tax loolu lan moo tax ay mbokkam duñ ko seetaan mu xeex ak Modou Xarañ Lo waaw non loolu jarul di wax ñëpp xam nga yow mi xam na non kay xaw ma dara dama danga ne ay ko dëggal mu xeex ak man man lan moo tax nga wax loolu Modou Lo waaw parce que ay mbokkam xam nañ bu baax a baax ay mbokkam xam nañ ma bu baax a baax mm-hmm. ragal naa su taxawee ne day xeex ak man dina def ba xeet kenn saako yi ah incha jërëjëf jërëjëf gars yi maa ngi leen di bu baax di leen ziar Modou maa ngi lay nuyu bu baax di la masawu coono bu baax di masawu mboolem ku fi teew gars yi liggéey bi métti na trop. sama première question Modou mooy adversaire bi ngay bëreel di Siteu dafa miin secteur bi diggante Parcelles ak Grand Yoff ak Grand Médine dugg na fi ñeenti combat am fi ñeenti ndam. dan fi sama Pape Mor dan fi sama Zox ak Papa Sow Sarko cette fois ci. be yo yeb jaro nga yeb fi moy frontière bi frontière bi. ok dañu dégg Siteu ci bir ay waxam mu ne taxi roi bi wala ma dag bop bi bo bañee dama lay ray wax ju xoromu la loolu. wax ci xoromul kenn du jàkkaarloog Modou Lo naan ko da ngay dagg boobu. mais dama koy ñaan rek di ko fàttali. waaw ni mu doon waxee keroog. bu ñëwee la fekkaat na ko jëfee. mu ngi leen dëggal laa koy ñaan incha allah. mel yow ne la maa la mën fuuf nu la góor mësul wax ba pare ne la loo bañ mu yëg si bul ko jàppal bis maa la fuuf. loo bañ mu yëg si bul ko jàppal bis. maa ngi bis bi moom koy wax jàkkaarloo ak man de xanaa ci télé mais fa physiquement jàkkaarloo ak man góor mu dama ko wax à distance buñ taxawee ñu rek war a ji incha allah. jërëjëf Modou Lo ñu ngi nuyu di la Massawu bu gis ni ngay waxee sax xam ni teg ay coono ndax préparation moom lañ noonu di félicité ñi nga xam ne organisé xam ne moom mooy ëppal presse bi. donte liñ bëgg lépp à 100 pour cent mën taam naa ne réussir na ko à 90 pour cent parce que nit def mu mat yàlla rek boo ko bañ. maam ñaari question bi des mooy Modou Lo dañu gis ni sa combat ak Siteu au bi dañ ne woon amul danger da ngeen a ñaa ñaar da ngeen a rusante ñu dem ba ci biir danay changé Siteu di wax ngay wax lan moo waral communication boobu changé seen diggante Siteu lan la. waaw ah, non dafa lekk avance ma lekk avance faaw ñu waxante jëlu avance pour raayante wala dañu jël avance pour def signature saf ñu bëre mais pas ay jël avance di raayante wala di non loolu moom moo tax. bi des chroniqueur yooyu lu si bëgg jox la favori à 100 pour cent moo dóo moo ëpp doole moo dàq bëre. élection boobu nga ko ko bëriwaale ci mbër boo xam ne tey neen yaa ko mën tey nan nga ko dundee yow. tey favori boobu ñu ma def doxee du ma ko doxee parce que su ko bàyyi woon xel kon dinaa yolo man mais li ma nekkoon démb tey laa ci a nekk ba tax na loolu waxu ni kii dara quoi les chroniqueurs la mais li ma xaar man. xam naa ko te incha allah yàlla nañ ci defal ndax mu soobee yàlla. ñu bari ci expert lamb yi gis ni Modou Lo dafa yokk maas maas bi doole ju mu àndal la wala taayu Modou Lo moom xam moom moo gën a xam boppam ndax daa doole ko wala doon la mel. waaw moom comme dama ne staff muy entraîneur ci musculation wala ci lutte bi wala ci boxe bi ñoom ñooy xam combat bu nekk ak lu mu laaj bu tax nañu lépp lu ñu war a liggéey liggéey nañ ko poids bi nit ñee koy gis mais

dañuy def communication chaque jour ci biir staff modlo, Lo ñu Modou Lo am na coow ak Papis ñu suñ tournée ñëw jël li nga ni eh, mais c'est une question mais on n'a pas le droit de poser. bisimilah bisimilah vas-y vas-y vas-y vas-y ndax damay poser né damay poser pose, ndax modlo, et son staff ñom ñooy teg stratégie à chaque fois ñu né modlo, ak Papis ils ont des déphasages ou pas stratégie là, wala lan la. waaw li ma lay tontu ci loolu gars yi question la xam nga fii dañ fi ñëw pour waxtaan ku nekk wax sa xalaat wax li nga xam mais dama la bu nit bokk teen ñooy laxa sooy goj yow sa waajur wala sa rak wala sa mag des fois ci kër gi coow mu ñàkk waaye bu lépp amee ñu toog a waxtaane wala lépp jàll alhamdulilah jërëjëf jërëjëf Modou Lo ñu lay nuyu di la sargal di la laaj des lool yoo xam ne gis nañu Siteu sa adversaire yokku na poids bu mosul yokk si biir combat bi ndax loolu arrangé na la wala. waaw waaw man poids solo lu ko ci làmb bëri na ku yor ne poids lu poids la daanaka sax ñi may bëri yëpp ñoo may ëpp d'habitude ba tax na ay poids bu mu yokk ak yooyu yëpp dérangé wu ma. Modou Lo euh, Siteu ci ay qualité yu mu yor ndax am na benn qualité bu Siteu yor bu métti ci moom. non non comme ni may wax la am na ay mëni am na ay faiblesse xam nga ba tax na lépp ñun lu ñu war a jàngee sàmm bi jàng nañ ko ci dugub gaw ma dara dama solo ci woon jox jigéen ñi tuuti la champion ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. dañu gis mystiquement lépp loo xamante ni làmb mi ko laaj cité euh, moo si. gis Modou Lo dafa waxoon ne croix rouge ci mystique mais gis nañ saa Touba ak yi muy génn lépp ñu dégg ko fi xam ne mooy jolwaar est ce que mën nañu xaar Modou Lo mystiquement mu ñëwaat am déet. merci man nag loolu moom boo leen ko laajoon ñoom ñu koy def mu gën a neex parce que man loolu du sama domaine man ci entraînement yi laa nekk ak récupération yi ba tax na am na la nga xam ne ñoom nga koy laaj mu gën a neex. Modou ñu ngi leen nuyu di nuyu ñi fi nekk ñëpp. lay fay fa. Ah, li ma lay laaj moom parce que combat bi Modou Lo en tout cas loolu moom la ñu sànq. parce que am na différence mais comme. génération kenn Modou boo xamante tout le temps yaa ngi koy gis la ay sarax la yoo yóbbu ci daara yi. Ah, loolu mooy li may wax am na li nga xam waxu waxu waxu kuy siis la man ak daara lu yàgg la lu may def kenn xamu ko comme des fois yenn ko. ndax ñi ko mënta def ñu ko di ci roy loolu moo tax ñu def ko mais aw ma sarax bu mooy yóbbu ci daara wallahi li may def dama ko def te yàlla tax ci yéene wu ci sarax yéene tax dama ko yéene def ko te yàlla tax kese kese kese kese beneen bi mooy gis nañu comme li nga li nga xam ni tontu wu ma ci mooy comme combat bi dama ci may gis ful non man dama mës a relaxé ci combat yëpp amaana nii ñoo bàyyi xel gis nga féew ñoom si mais man combat yëpp dama ci relaxé amul lu may daw amul lu may nëbbatu fu ma war a dem laay dem fu ma war a dem mu dee suma tànk mais combat yëpp laay yemale maaleykum salaamaaleykum sër parcelle gépp laay nuyu parce que amul ku may bàyyi bi ma fi ñëwee gis naa ni ñu jàppee làmbaloo mais yàlla na leen yàlla dooleel su ñëw yàlla dina doon ñëw parce que loolu dafa nekk sama xol parce que nit chaque jour nga dem benn koñ daj fa coono mais da ngay dem beneen koñ doo fa daj benn coono te dëgg neexul ki la suturaal rek moo la mais kii moom dina xam ne ni moom am nay question parce que am na gis am na retour waaw première question a mooy est-ce que xam nga ne bàyyi nga xel ni Sa Touba jël na risque bu mag première question. waaw risque. waaw àdduna dañuy wax ki risque rien n'aura rien. waaw. yaa ngi dégg. waaw pop pop pop pop pop ça la vie am. soo ko yee dara faaw nga def dara. maa wax loolu yéen a ko jàpp risque loolu gaw ma risque la. gis nga Sénégal fii. amul kenn ku fi moom dara. Mm-hmm. man mii parcelle. buntu kër gi lay am. waaw war na leer mais munu tere. waaw ku dugg parcelle wala ku dugg feneen. waaw lamb la def. ku ci nekk ni ko sentiré yëgee ko nañ la bàyyi nga defee ko parce que ku ci nekk sa liggéey nga def. parce que ku wóorul li ngay def am na loo xam doo ko sax bàyyi xel ku li ngay def muy entraînement yi te ko ci yoon. am loo xam ne doo sax xel man foofu laa taxaw man loolu laa gëm dama gëm yàlla la moom maye ndam sabab yi nag mooy liggéey entraînement te ci suba ngoon guddeeg bëccëg mais le reste yëpp ay branche la rek yu nekk ci làmb vraiment waaw beneen question bi si des mooy adversaire bi dañ koy indi dañ koo xeeba mais bi mu dañ naw bi lañ ko digal ko ma ne ko xamoo ki ngay war a xeexam ndax indaale nga say matuwaay yëpp parce que Modou ku yóbbul say matuwaay si xeex yow pare nga pour samp cagaar yi bu wootee si xeex bi da koy éliminer si xeex. jarul may tontu tontu nga ko dèjà. sax moo fa teg daw dugg ci tànkam loolay suñu xol kon suñu jaarale si loolu moo ci gerte loolu moom xalaatam la baax ngir mu bëri moo ko bëggoon bëri ñoom suuf xalaat nga mën a suuf moo tax ay borom yu bëri yoon. léegi beneen bi ba pare dama dégg ñu koy woowee yan mbir yan mbir mooy borom kër mais nee leen ko yaar sax la ak garab mooy borom kër borom kër yi du yaa saxle mooy borom réew mi te borom réew mi mooy yilif borom kër yilif borom quartier yilif borom gox yi. moom mooy nee na mooy yilif waa Diakhoune macha allah ñu ñëwaat ci beneen bi. ak pied droit sa nooy neex lay doon combat bi ñu mën a xam Modou une fois arbitre na pied yooyu bu wutali Siteu xeex ak moom wala damaa fas yéene bëri ak Siteu lan nga mën a wax ci ci côté waaw mais xam nga kenn du def dara daan ngeen daaw yi dañoo ko tamit xam ba tax li ñu ñëwee daan ñëw ci li ngay exemple di xaar bis ba incha allah ñu def lu ñu def ak ñu ci li voilà ñu ne ngeen koy xëccoo man ci li ma xam muy ko di série sa que bu ma gisee laay naan naan gis sa côté gis yeneen yoo xam ne xam naa leen ma am ñu ma laaj ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci côté ci biir île yi ñooñu mel ni am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci sa côté mais moom ci ay waxam dafa mel ni foofu yow amuloo fa dara ci côté séeréer si rawatina ndox Modou ndax moom si ci séeréer kan moo fa nekk numéro un. xam nga kaw coono yi amul mais man ci maa ngi doon jiitu waaye nii gis maa ngi yokk groupement équipe nationale la nekkoon depuis 2006 ama 2007 ba yàlla dogal bu tuddee suñu ay doom unifié bu fu ma fa xam ne fu ma mën a mun bariwul kon yàlla dama bokk foofu dañ may ñëw may occasion rek ma profité remercier wala waa IBI di ko commencé ci Magal Samb Magal Campement fi ñoo joor John Waar fi ñu am Marlo Marfato Jibal CSN. si ba laata am na bëgg a maîtriser dama bokk foofu noonu. di nuyu sama village Fandène sama village yaay di nuyu waa Taïba sama village papa. maa sama spécial parcelle. am benn numéro kenn dama wax wax fan sama supporter mu ne boo gis mu ne Sénégal nekk nii.

taay mooy lépp laa fi am ba tax lu ma nam adversaire bu nekk am na parcelle di leen wax ñun ñëpp maa leen ñaanal di ci jiital Franc combat moom Ama Baldé ngeen ngeen ñaanal ko yàlla may ko ndam ah, am na combat ngeen ñaanal ko ndam Talfa am na combat ak Mbacke Faye laaj Pirago tamit am na combat Thiès ak Konda combat bi tamit ak Mamadou Ndiaye fee tam am na combat ak Sey Jambar ak Pakala ñoom ñëpp parce que lañ dëgg ñoom Ndiaye ak ñoom ñun Bam yëpp mais ñaar ba leen ñu am ndam parce que lu ma nekk ñoo ngi ci tey bu nit ñi mën ma gisee kontaan ñoom dañ ci béy waar bu rëy rëy rëy parce que macha allah ay xale yu sawar lañu duñ ma may dara du ñuy tamit staffu Rock Énergie ak staffu jàmbaar yëpp bu ñu mayee jiw juróom juróom sera sawit am na ci combat ak tafa mbër ñoom ñëpp yàlla yàlla may ndam incha allah man benn question la jeex est-ce que mën nañ li fi euh, euh, fi amul lu fi xew. tey ko bu ñu jëlee dañ koy def mais bu jeexee jeex na te bu jeexee relation day continuer la vie continue amul dara lu muy mën a